maa ngi lay fay euh, mon fils euh, di di la kontaane di sawar lool ci bokk ak yow jataay di xaar nag say laaj ma tontu jërëjëf. alors fan yii paase euh, gis nañ ni Boy Kayre dafa génn ak Diène Kayre def benn sortie ne ñoom Siteu sax ñoom nee nañ ci Siteu parce que Siteu ñoom public la leen ëpp rek mais bu dee wàllu palmarès ñoom ñoo ko gën a riche la palmarès père loolu loolu bu nga ko déggee nag nga ko dundee. non loolu wax bu yàqu la bëgg a bëreeg la bëreeg Siteu dafa neex. da am xaalis day doon événement waaw mais loolu wax bu yàqu la dama doon sox duma ci tontu mais bu fekkee làmb lépp solo mooy boo daanee fu mu la yóbbu mënoo nii la Coins di laaj Siteu jën mbër la champion la xale bu ñeme la xale bu mën a bëre la xale bu yaru la mi ngi def ay preuve am mais bis bu ñu làmb boolee duñ ko bañ dañuy bëre force. kon jàpp ne instant yi làmb non jamono ji làmb boole wuñu promoteur bu ñu woo bu ñu la raisonné da ngay nangu ne xaaral ma witi keneen ñi ngi dox yeneen combat Siteu mhm. mais du moog jéen jamono ji ñu toll mais bis bu ñu làmb boole dañuy bëre. Mhm. naka nga gisee jéen kaay na moom euh, moo dàq bëre Siteu bu ko jàppee da ngay daan. ànd ah loolu waxi bëgg a bëreeg nit la rek waxi bëre bëgg a bëreeg nit ki la. Mhm. waaw mais jamono ji moom du mook Siteu. ñoom ñaar làmb boolewul leen. déedéet dañuy bëre force duñ ko mën a bañ force lay doon waaw. ñoom ñaar bu leen làmb boole te bépp. non non duñ ko bañ am ñu ko laaj de. nee nañ non non oh, mën ngaa nii la Coence di laaj jéen waxuma sa di di laaj Siteu loolu wax bu yàqu la dañuy wax rek. waaw ah, papaam nee na bu fekkee ci ay public la ko ah, la ko teg nee na jéen kaay léegi Siteu ëpp ko public. non non. loolu la wax te moom moom moo wax loolu. nga ne moo ne. Euh, bu dee public la bu nekkee public la euh, public la. mais jéen ci biir combat la duggoon si tax xajul ci benn combat. benn combat nag benn bër. Hmm. bu si tëddi dugg ci sa biir combat amul. kon nga jàpp mbooloom xajul ci ginnaaw benn mbër. si tax xajul ci benn mbër pour di la bëreel ñu premier combat déedéet. Hmm. moom nee na euh, Siteu daanu fi ñi nga xamante ne ay champion la ñun mu daan moom ñu moo gën a nekk ay champion que ñi Siteu daan. non palmarès même ki la daan da ciy bokk. ki la waaw parce que bu fekkee yow ki ma daan yow mënoo koo am. Hmm. non bëgguma dugg ci yooyu détail. waaw père da ngay non non dama lay wax rek non nañ bàyyi rek parce que ñu la boole dañuy bëree. waaw parce que bu fekkee yow mën même bu ma guy gi daanee Sa Thiès daan ma yow mënoo am Sa mënoo am guy gi ki daan day bokk ci sa palmarès parce que ñooñu boo defutoon dara duñ la jël. Hmm. pour tëb ñoom suñu doom la ñoom ñaar ñëpp mhm. bés bu ñu làmb boolee dañuy bëre naa la boobaa Siteu du ko bañ force lay doon ah moom jàpp na ni moom euh, euh, Siteu du ko ragal de léegi yow même boo xamul dara ci làmb mën ngaa ne la Quench di bëre ak Siteu yow boo xamul dara sax ci làmb waaw mais làmb la Quench écrit ne kon su ma déggee revanche boobu moom nga gën a soxla que Siteu euh, kii Diène Kaïré booba combat boobu sax xel nangu na ko ndax dañoo war a leeral ñoom ñaar waa ne Modou Anta mi euh, mi jën kayre daan na. non waxuma loolu daanu ma sar koo daan sos bu guma lim làmb booleekuñu pour ñu bañ fenn di sori. Mm-hmm. làmb booleekuñu bi suñu làmb boole dañuy bëri. Mm-hmm. léegi naka booy jën champion la xale bu yaru la xale bu mën a bëri la xale bu xale la bu làmb bàyyi xel. Mm-hmm. champion la naka gisee am ni peeram génnee moom soxla combat boobu. Euh, non waaw jaatu na. surtout boo bëree ak moom am xaalis boo bëree ak moom mu doon événement. est-ce moom nekkul pour jàpp euh, Siteu daan ko. déedéet ay loolu ñun loolu. du lu ñu gëm xam nga loolu moom mënuma cee waxtaan ndax nag xam nga liir bu ñu ëmbagul moom ngénte li duma ci waxtaan jotagul mm-hmm. bés bu ñu la am boolee dañuy bëre alors nu ngi noonu mbokk ah. internetu euh, Dakar Net yaakaar naa ni euh, euh, yéen ñu doon laaj sortu père Max Mbargane tey génn na wax na moom naka la gisee réaction bi nga xamante ni boykaar yi na ko def ko léegi père duñu defee du lu jox la nga tàggatoog mbokk internet yi lay seetaan waa di kontaan ci yow xam naa ne am na ci loo xamante ni junj nga ko sax danaa la ca mosal muy Eumeu Sène ak Bombardier muy combat boo xamante ne nii làmb da ko bàyyi xel Bombardier daa tëkku woon ne xale yi gën a ës danaa leen daan daan ñaar ñi kenn ki daan ko kenn ki ko daanoon la war a bëre waat ak mais moment bi ñuy bëre nag dafa fekk a Sène am ñaari defet yoo xam ne Pikine ba léegi nangu luñ ko ko baal mooy ni mu ñàkkee roi des arènes dajeeg Lac de Guiers xeexul bërewul ñàkk par décision arbitrale war a bëriwaat ak Bombardier waaw mbokk internet euh, dakarnet point com kon ni nga koy defee à chaque fois euh, di ko doon laaj mi permas yaakaar naa ne génn na pomit mooy na di leen jox dig daje ak keneen incha allah jaa ngeen jëf